saydina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanihim ila yawmi diin ixwaani fi laah nuxayikum wa nashurukum wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw ban musuloo si seytaani sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu di leen ko baal di ñaan ci kàttanu yàlla ak yërmandeem yàlla ñu yàlla boole jéggal waaye di ñaanal imam yàlla wéral ay cëram ak ñu topp ci moom di ñaanal sun mag ñu baax ñi fi si yàlla wéral leen kàttanal leen waaye di ñaanal way dawlu yi yàlla yërëm leen te jéggal leen way tawat yàlla saafara seeni tawat ñu tëdd ci lalu hôpital yi ñu ñaan yàlla saafara seeni jàngoro delloo leen ci seeni njaboot sa mën na ko lu yomb la ci moom waaye di ñaanali way tukki yi yàlla yóbbu leen ci jàmm delloo ci leen sa bu ne wàññiku màngaaleem koom-koom ndax lu si am solo la di baal war a àq ñépp di jéggulu ñépp di leen ndokkeel di leen siyaar di wax ne suñ tomb tey am na luñ ci junjoon keroog xanaa dañuy continuer rek muy lu aju ci weeru koor wi mu nekk loo xam ne dëdmal nañ ko li ci des bareetul gën ngaa bare ñaari fan ñett ñu tàbbi si ñuy ñaan nag ci kàttanu yàlla ak yërmandeem ak màggaayam ñuy ñaan fekke ko tal ko man ko mu ànd ak wér mu nekk waajtaay boo xam ne waajal nañ ko ndax yonent bi alayhi salaam bu weer wi daan ñëw da ko daan waajal ba tax na danaan inna rajab saxarullaahi rajab weeru yàlla la waaye saxbaan mooy sama weer ramadaan nag mooy weer wi nga xam ne sama xeet ñoo ko moom mu ëmb ngëneel yu bare lool yiwu bare lool sa kenn xamul nu mu toll biir waajtaay boobu nag yaatu na bokk na ci prépareel sa bopp ba bu ñëwee doo sa am benn gàllankoor ñaan yàlla wéral la préparé wér ca la bokk ndax jël say matukaay ba bu ñëwee benn gag du la sa dab waaye waajal ko bokk na ci lépp loo xam ne aju na si wàllu njëfinukaay nga waajal ko ba bu ñëwee doo si am benn jafe-jafe waaye bokk na si waajal ga tamit bàyyi xel ni weer yi dafa war a feeñ dañ ko war a séentu sa nin koy séentoo mooy si asamaan si sa yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal nanu ni weer yi buñ koy séentu naka jullit yépp bokk séentoo ndow bu ko ñaar ñu maandu gisee jottali xibaar bi ñu ñëpp war nañ mën a dëppoo ci ñaar ñu maandu ñooñu ñu woorandoo benn bis muy umandoo bu fekkee ni ëpp na ñaar tamit ca la dàq waaye daf ko tënk ni ñaar ñu maandu ñoo xam ne ay julli lañ ndax bu nee julli rek mooy ki nekk ci islaam mooy ki gëm yàlla wóolu yàlla yaakaar àjjanaam tey ragal safaraam sa fas yéene def ay ndigalam bàyyi ay tereem samu dëggu say dëggal ñooñu lañ sant ni buñ ko gisee ñu am kóolute ci ñoom ñu mën a umandoo benn bis séentu ba nag ba tey wax na ni suumoo li roxayati yii woor leen bu ngeen ko gisee waaftaroo li raayati yi dog leen bu ngeen ko gisee mu ne fa ay xumma bu fekkee ne dafa niis fa akmiloo iddata saxbaan salaasina yawman matal leen weeru saxbaan bi fanweeri fan yu mat sëkk lu tax loolu fa in xumma ba muy mën na feeñ sa ay niir muur ko mën na feeñ sa ay niir muur ko bu boobaa kenn du ko gis looy tënk mooy nan matal fanweeri fan yi bu xëyee ñu doo ko woor lool rek doy na cëslaay doy na tamit sukkandikuwaay si ñun jullit yi ñu gëm loolo te doxe loolu xataa bu ndee ba sa korite ga tamit ka saalik sañuy moytu nag dama ko waxee woon keroog werante wi ak tuumalante bi ak xeebaate bi ndax parce que du jur lu dul musiba rek wala jur lu dul fitna suñ biir ñu préparé ko ci ay ñaan yàlla mën ñu jéggal suñuy bàkkaar ci biir weer wi waaye ñu waajal ko tamit jaamu yàlla goo xam ne yàlla dana ko ci nangu ndax koor mi ngi commencé ci fajar gi ba jant bay so min tuluu il fajr ila qurubi samsi la wax si feeñu fajar gi leeraayu fajar gi lay commencé bàyyi lekk bàyyi naan ba jant ba so mbooleem fani weeri koor wi muy wenn neuf waaye bëccëg bi yépp kon loolu bokk na si nun koy waajale pour bàyyi xel si loolu suñ borom bi dafa ni lekk leen naan leen ba buum gu weex gi di feeñ bu ne buum gu weex wi am na ñu ni si jamono bu jëkk ba arab dañ daan takk buum si bu digg ëtt bi wala buntu kër bi taxaw di xool heure bu ñu gisee buum gi rek doog a bàyyi lekk wala naan waaye yàlla def na léegi jumtukaay yi yomb na montar yi am na heure yi am na léegi am nañ ay tegtal yoo xam ne buñ sa jaaree danañ xam ban heure la ñuy arrêté xëdd ban heure tamit lañuy dog loolu ci paraparation lay doon ndax technologie bi yaatu na léegi waaye ci biir loolu yonent bi neen nañ xëdd tasaaharoo fay na fi soxuri barak xëdd leen daq de barkee ngi ci walaw bi juraata minal maa doonte guuxu ndox la tamit naan ko ndax parce que barke ba bu doon guuxu ndox la naan ko ndax sàkku barke kon tëdd di nelaw ni du ma xëdd ngir tayeel ak i nelaw jàpp la kooku kon bàyyi nga sunna li yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax ndax moo ne jàpp leen sama sunna donte guuxu ndox la sax ngeen def ko sàggan bu mu tax nga bàyyi xëdd waaye boo xëddee tamit bu ndemee ba jant bay soow mu ne gaaw leen a dog wuuteeg suñ mbokk yi xam ne dañuy continuer seen koor bu guddi am na fu muy wax ni mu ni bu leen continuer seen koor ba biddéew yi feeñ maanaam guddee dog ba lëndëm lëndëm bi dugg ba biddéew yi commencé feeñ mu ne déedéet bu leen def loolu ndax sama waxeet duñ deñ di am yiw fii ñi ngi gaaw a dog sa yéex a xëdd sama waxeet du deñ ci ñoom ñuy am yiw fii ñi ngi gaaw a dog waaye di yéex xëdd kon nañuy gaaw a dog sa yéex a xëdd loolu bokk na si tegtal yi ni yonent bi aleyhi salaatu salaam jagleel ñu mën ci bàyyi xel waaye mu ne na ñaan bu dogee nan ñaan bu ñuy xëdd nan ñaan waaye koor gi yépp jaamu yàlla la ñaan la yonent bi aleyhi salaam nee na jaam bi bu woree ba ngoon na ñaan lu ko soob daawatu maa turid na ñaan lu mu bëgg mu ne aji woor ji bu wooree ba ngoon bu ñaanee lu mu ñaan yàlla nangu ko bokk na si ñaan googu yonent bi aleyhi salaatu wax ni ñett delloo seen ñaan salaasatun la turaddu daawatuhum ñu ni ko ñan la mu ne al imaamul aadil imaam bu màndu heure bu ñaanee yàlla nangu ko kon nan jëm a màndu yàlla màndul ñu jàppale ñu al imaamul aadil imaam bu màndu waxuma ko de yonente ba wax kon bu ñu yàlla tegee ci kanam ñuy royukaay du ñu xool ña ngay xool la ñuy sol na ñuy doxe na ñuy waxe na ñuy tooge kon loola war na la ñaax yow mi ne ci kanam nga sàmm loolu ndax tuuma dafa yomb surtout nag nitu islaam surtout nitu islaam tuuma dafa yomba dal ci moom rawatina nag ñu ni imam la wala ustaas la wala sëriñ daara la waaye waaye ñoo weex donc ñun ñoo weex donc sa nag li ñuy tuumaal ñañ koy tuumaal ma seen biir xanaa dañu da gën dañu dàq wax rek ëpp ñu làmmiñ waaye nag nan jéem a def suñ kemtalaay kàttan maandu bu baa yàlla dimbali ñu kooku bu ñaanee rek yàlla nangu du jaas beneen bi si topp mu ni wa saaimu inda yuftar aji woor ja heure bu dogee waxtu dog lu ñaan yàlla nangul ko wax naa ko si njël bi li saayimi inda fitratihi daawatu ma bu ñaanee yàlla nangu ko waxtu muy na euh, muy doge ak ban muy ñaareel ba muy ñetteel ba mu ni wa daawatul maslum ñaanu aji ku ñu tooñ kon jullit bi du tooñ nañ bañ tooñante suñ biir ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam jële nañ ko si hadiisu Abi Hurayrata ak Abi Sarr al-Ghifari mu ni suñ borom subhaanahu wa taala nee na yaa ibaadi yow samay jaam yi inni haramtu sulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tusallamu man yàlla araamal man saa bopp tooñ araamaa ci sama bopp tooñ ma def ko mu nekk seen diggante kon bu leen tooñanti ñaata ñooy xëy di tooñ mbokkum jullitam ak mbokku dëkkandoom sa wax ni jullit nga di ko tuumaal di ko tegal ay ndëgg sërëx di ko gàkkal deram di lekk ndawalam di ko jëw di ko fenloo di ko xeeb ñaata lay doon si société bi si ñun jullit yi c' est li ëpp doole yépp boo waxee man a jullit laa jullit du tooñ sa boo la tooñee da ngay jéggale kon suñ borom bi moo ne araamal naa tooñ sama bopp bu leen tooñante waaye waaye nan iwite tooñ mu ni kii nga xam ne nag dañ kaa tooñ bu ñaanee yàlla dana nangu tooñam daal de yàlla dana nangu ñaan googu moo tax mu ni daawatul maslum ñaanu aji tooñ kiñ tooñ bu ñaanee yàlla nangul ko ndax parce que yarfauha fawqa loqamee yàlla da koy yëkkati mu jaar ci bëtt niiri asamaan ba juróom-ñaari wala asamaan asamaan bu mu romb ñu móolu ko su buuxul ma la ba juróom-ñaari asamaan ya mat ànd ak nag duñ ko nangoo tatagal benn yoon moo tax mu ne day bëtt juróom-ñaareelu asamaan ci niir yàlla ubbil ko bunti asamaan moom ñaan googu day bëtt asamaan ba asamaane juróom-ñaar ngir lan muulu ki tooñ waxuma kiñ tooñ de kiñ tooñ bu ñaanee yàlla da koy nangu waaye ki tooñ ah kooku lay ñaan nga di muulu ki ñaan nag bu ñaanee yàlla ubbil ko bunti asamaan moo tax mu ni suñ borom bi del waxaa ne wabi issati la ansurannaka walaw baada iinin rawahu tilmis man dinaa la jàppale bu baax dimbali la wallu la ba nga xam ne xilli sama màggaay sama teddaange kii la tooñ dinaa la fayul kon ñii nan bàyyi xel ni buñ leen tooñ ki ba ngoon jot bu ko tooñ ndax lu ñaan yàlla nangul ko imaam bu maandu bu ñaana yàlla nangul ko waaye kiñ tooñ bu ñaanee yàlla nangul ko kon loolu bokk na si li ñuy bàyyi xel bu baax ci bëccëgu weeru koor waaye bokk na si bëccëgu weeru koor it ñuy moytu jëf yu sew yi yoneen dellu waxaan ni man lam yada xawlu sóor wala amalu bihi fa laysa lillahi xaajatan an fi an yadda taamuhu wa sharaabuhu mu ni képp ku nekk ci bëccëgu weeru koor sa bàyyi woo waxi caaxaan ñu di ko wax mbosóoru waxi caaxaan mooy lan fen jëw euh, wax naka su dul noona sos lépp lu aju si loolu loo xam ne dafay jur lu xaraam mu ne bu boobaa jàppal ni sa koor gi lekk ak naan kese nga si am waaye amoo si yàlla xiif ba ngoon ñu war la fay fayuñu la di la fay safaan ba kenn ku nekk war na ko mën a moytu moo tax dani boo wooree na sa cër yépp woor isaa kunta summan fahfas lisaanaka wa usnayka wa absaarak boo wooree wattul sa làmmiñ bu si wax lu ñaaw waaye sakkal say nopp bu ci dégg lu xaraam sa bu ko ci dégg dégglu waaye gëmmal say bët wàccal say bët ba bul xool lu xaraam kon ñett yii bu la yàlla dimbalee nga mën ko sàmm si bëccëgu weeru koor jàppal ni la sa des dana mën a yëwan ci say jëf waaye bu weer bëccëgu weeru koor yaa nga sa dame ba yaa nga sa yoote ba yaa nga sa grand place ya yaa ngay jëw yaa nga sa PMI ba yaa ngay dox lu dul euh, lu dul safaan ba nga yéen nii nag bu ñu waxee nga ni damaa woor sa lekk naan rek ngay am waaye wooroo wooroo de te yii nag yu jar a bàyyi xel la yu sew sewaan yi nga yaakaar ni da nga koy xeeb fekk moo lay yàqal lu lay moo lay jural bàkkaar boo xam tey ëllëg bu la si yàlla toppee dana la tàbbal safaan ba moo tax ñu jëlee si al asad al bushri mu ni xalli saqiraha li kabiraha bàyyil yu sew sewaan yu tuuti yi mooy tax nga mën a moytu yu rëy yi bàkkaar yu tuuti yi yu sew yi mooy tax doo àgg si yum rëy yi mu ne nan si bàyyi xel bu baax mu ne xawlu sóor nag mooy comme ni ma ko waxee kullu xawlin muaramin bépp wax boo xam ne araam na lu deme nekk mislal kas bi fen wal xibbatu ak jëw wa xayraha ak yu ko nuru amalu suuri jëf ju mbësër lépp loo xam ne jëf ju xaraam la lu deme nekk tàbbal noonoo si diggante jullit yi ak doomu aadama yi ak wor ak gàccal nit ki mu ne yooya dana tax sa lekk ak naan ngay am si koor gi waaye doo si am payub suñ borom bokk na si bëccëgu weeru koor ni nga xam ne noonu lañuy ñuy bàyyee lekk bàyyi naan ba jant bi so muy xiif ñu di ko yëg loolu daf ñuy jàngal ni kon ëllëg war nañ mën a dimbali suñu mbokkum jullit mu xiif mu mar yonent bi aleyhi salaam ku tabe woon la ku daan jàppale la ku dimbali woon la moo tax mu ni yonent bi nekkoon na koo xam ne ku tabe la ku am taraanga la woon ku daan tereele la bu weeru koor ñëwee nag da koy yokk da koy dolli day gën a tabe bu daan def fukk def ñaar fukk bu daan def téeméer def mille francs wala lu ko ëpp ngir lan xam na ni lekk ak naan dafa metti xiif dafa metti lu mu daan def bu weeru koor ñëwee da koy duble kon yéen mbokk jullit yi mbokki taaliba yi mbokki dëkkandoo yi ku si waaye yàlla wërsëgal nga am loo dimbalee sa mbokk dimbali ko am na ñuy woor ba ngoon duñu yaakaar luñ dogee ña ngi koy yaakaare sa jumaa ya sa euh, imaam ya sa jàkka ya loola war nañ mën a taxaw seetlu daata sax weeru koor di ñëw war nañ mën a jàppalante suñu biir rawatina nag ndax bu nee jumaa jàkka julli yi dafa daje war nañ mën a jàppalante seen biir ba kenn ku ne gis sa bopp ba kenn ku ne gis sa bopp ndax dana tax islam bi gën a dëgër taqoo bi gën a dëgër takkatoo bi gën a dëgër ndax loolu lañu ñu alxuraan sant nañuy muñlante jàppalante ragal yàlla yàlla mën ñu yërëm asbira wa saabira wa rabita wa taqullaha laalakum tuflihun kon loola solidarité bu nekk suñ biir war nañ ko mën a doxal bu baax a baax a baax kon yonent bi noonu la daan def si bu weeru da ko yokk koon ñu suñ tabe nañ ko yokk ci weeru koor rawatina diggante jullit ak moroomam waaye ñuy dellu di tuub si bëccëgu weeru koor ndax yàlla nanguñu suñu tuub bu buñ tuubee bëccëgu weeru koor yàlla nangul ñu moo tax ñu jëlee si imaamul buxaari mu nettali mu yonent alayhi salaatu nee na si kàddu suñ mu ne ahta ummata muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox na xeetu muhammad ñeenti teraanga sama sa joxuma ko maanaam suñ maam Adama yàlla dafa am lu mu ko digoon am lu mu ko mayoon bis mu xañ ko loola ndax mooy ki jëkk ki mën njëkk bind si doomu aadama waaye moo njëkk nekk tamit yonent waaye moo njëkk nekk ku tàbbi àjjana waaye moo njëkk mooy yàlla yàlla wàccee ko génne ko àjjana mu ne nag moom loola gis na teraanga ji ko yàlla jagleeloon lu bare mu xañ ko si mu gis ni xeetu Muhammad yàlla jagleel na ko lu ëpp loola sa xeetu Muhammad di ko moy mu jaaxle si loolu lool moo tax mu ni man aadama yàlla teral na ma yëkkiwi sama ter teral gi ma teraloon teral xeetu Muhammad si ñeenti teraanga bu njëkk bi mooy al ula anna qabula tawbati kaana bi màkkata keroog ba may tuub pour jéggalu yàlla màkka laa tuube màkka laa jéggaloo yàlla yàlla jéggal ma keroog ba ko yàlla génnee àjjana tàmbal ko si asamaan juróom-ñaar muy adduna bi ba muy tuub palaasu màkka la tuube loolu day wane nekkoon màkk ku fa tuub yàlla nangul la waaye mu ni loola yàlla jagle nag waaye xeetu Muhammad nekk am saa su ne wa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatooboona fi kulli makanin fa yaqbalu llahu tawbatahum xeetu moot fu mu mën a nekk seddina place bu mën a bu dul màkk fu mu tuuba yàlla nangul ko tuubam kon benn taraangaangoo dégg la Seydina moo wax de nee yàlla màkk la yàlla jéggal ko benn place boobu xeetu Muhammad nag place bu ñu mën a nekk si àddina fu moyee yàlla bu ñu tuubee yàlla jéggal leen kon ñun ñoo gën si xeet yi kon yàlla jagleel ñun teraanga moo tax mu ne leen uxraja linaas kon loolu suñ teraanga la ñaareel ba mu ni inni kuntu laabisan fa lama xasaytu jaalani uryaanan damaa masa toog mooy yàlla yàlla xawi sama sutura ah damay wax de damaa mooy yàlla yàlla xawi sama sutura ndax yàlla dafa ma dénkoon ni bu ma lekk garab gii man ak sama soxna si Hawa waaye kii yàq xol yi di jax-jaxal xol yi muy iblis fexe na ba ñëw ba lekk loo ko garab ga déjà kon weddi na ndigalal yàlla yàlla mere ko si loolu génne ko àjjana si loolu wëlbatiku sutura bi mu ko joxoon mu sol ay yére mu yis ni yére ya xaw sutura sa ba nga xam ne ay xobi garab la jël di muur sa ay awraam mu ne xeetu Muhammad nag dañuy mooy yàlla guddi ak bëccëg ñu ne ko fang ñu di si teg teg bët si yàlla di leen suturaal guddi ak bëccëg moo tax yàlla sàkkal ñu guddi ak bëccëg moo tax guddi bu toogoon ba doon bëccëg kon musiba dana am yàlla na yàlla doole sutura ñetteel ba mu ni lama a faraxa bayni wa bayna imrat yii kero boo mooyee yàlla yàlla séparé ma ak sama jabar tàqale ma ak sama jabar wa umatu ma xeetu maamat ñi ngi mooy yàlla yàlla di leen bàyyeeg seeni soxna man ma mooy yàlla yàlla séparé ma ak sama jabar di ma pini waaye xeetu maamat guddeeg bëccëg ña ngay mooy yàlla saa su nekk yàlla di leen seeni soxna ñaata boroom kër jéggulu si kàddu gi rek ñaata borom kër ñooy bàyyi seen soxna si biir dem mooy yàlla si biti yàlla suturaal leen ku yàlla suturaal nag suturaalal sa bopp ñaata soxla ñooy bàyyi seen borom kër dem mooy yàlla si biti ku yàlla suturaal nga suturaal sa bopp moo tax mu ni bëccëg bi liggéeyukaay la sàkk wërsëg waaye guddi gi mooy suñu sutura nañuy suturaal de suñu biir kon ku bañ yàlla séparé laaj sa soxna gàttal sa wërsëg xañ la sa teraanga moytul mooy yàlla ñeental ba mu ni inni asaytu fil janna fa axrajani minha keroog ba ma moyee biir ajana yàlla dafa ma génnee waaye wa ummatu muhammad yaxsuna la xaarijal janna fa yadxuluha isa taabu xeetu muhammad nag dañuy mooy yàlla di mooy yàlla ah yàlla dig leen ajjana ñuy tuub di leen jéggal tàbbal leen ajjana kon ñeenti taraanga yaa ngoog muy taraanga joo xam ne yàlla jagleel na ko xeetu muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nañuy baree lu ñuy tuub ndax yàlla di ñu jéggal aksiro salaatun alayya bare leen ngeen julli si man ndax kat fa ina salaatukum maxfiratun li sunubikum julli gi ngeen di julli si man njëggal lay doon si seeni i bakkaar ma di ko efface wa adliboo liin alwasila ngeen sàkku si man nag wéeruwaay mooy alwasila muy wéeruwaay kon suñ digganteeg suñ borom kan moo ko dox sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ku bëgg a àgg si yàlla jaaral si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg a jot yàlla ku bëgg a xaritoog yàlla jaaral si sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam naka nga fay jaare mooy del julli si moom allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim rawatina mu ne nodd bu daana nan julli si moom muy allahumma rabba hayasihi daawati tamma wa salaati alqaa'ima aati Muhammad alwasilata walfadila wa darajata rafiha wabaxasu la maqaman mahmud allasi waa innaka laa tuxlifi lmihab mu ne boobaa allat lahu safaxati yowma alqiyama heure boo waxee loolu mu ne sama ramm wàcc na si yow keroog yowma alqiyama doo am benn jafe-jafe yàlla tàbbal laa jana yàlla na sa bonk mu ne kon loola bokk na si li nga xam ni la ñuy jullee si yonent bi salaam pour am njëggalam ci moom kon ñun jullit yi war nañ mën a taxaw am position boo xam kenn duñu gën a am wasila wasila nag boo ko déggee si li nga xam noonu lañ ko baaxoo di ko dégg mooy yàlla dénk la sëriñ nga jokk si moom kooka am na ku mu jokk woon kooko am kum jokk woon kooko jokk si yàlla waaye li may mën a wax foofu kenn ku ne mën nga am sa wasila bopp waaye nag tënku si mbir dafa am solo ndax ba yàlla sàkkee baay ak yaay doom juddu fa la kilifteef commencé ba yaay ba yàlla sàkkee baay ak doom ñu judd doom judd la kilifteef commencé kon foo mën a nekk allah kulli xaalin da am kilifa yàlla rek mooy kilifa boppam aadama am na kilifa awaa mii soxnaam am na kilifa ndax aadamaay kilifaam yàlla du doon seen kilifa Seydina Muhammad même bu leen jiitoo sa asal moom moo tax ñu bind ñu moo tax ñu sos àddina ak alaaxira moo tax yàlla di ñu jëggal am na wasila lan mooy wasilaam muy ñaari waajaram yu ko meññ mais bu du woon mooma du am yàlla dogal na ko lu jiitu loolu nag waaye jaare na ko foofa pourtant bi muy daata ràññee bay ne ñàkk na ay waajuram gisatul kenn waaye joxaan na ko yeneen kilifa yu ko taxaw muy bàyyi taxam ak maamam loolu mooy wàlli ko wéeruwaay am na solo waaye ka ngay wéeru nag na na nekk koo xam ne ku jara wéeru la xam nga dañ ni boo wéeru si yàlla doo daanu waaye man nga wéeru si nitu yàlla bis bu daanoo doo daanu ndax parce que dana la bàyyee loo xam ne doo mas a daanu kon nan wutu wéeruwaay ndax xale bi bu balaa muy jàng wax fokk ñu jàngal ko wax kon wasila am na solo wabtaqo ilay wasila kooku yàqu alxuraan la waaye ba mu koy waxee na nekk koo xam ne dana naa yàlla nee na rasulaay nee na wasila woo mën a toogal wala ku mënta doon ak lu mu foor foor foor yàllaa ko gën a foor ndax ba yàlla nee jaamu leen ma bu leen a dara ñaari waajur yi la si teg koo say teg doo say teg waaye muhammad nga mën a def directement mu àggale la si yàlla su doo am intermédiaire waaye képp ku la naan yàlla nee na jàppale bëggal na la lu baax rasulaay nee na jàppale bëggal na la lu baax waaye jotaay boo mën a toog doonte cinq minutes la dix minutes la nga toog fu ba jóge sa ki nga xam ni mooy sa wasila wala moom nga yaakaar sa neew la ndax julli nga suba julli nga tisbaar ponk yu islaam ñaata la sàtt julli ñaata la faratay tiim ñaata la ah njàpp ñaata la képp ku la ko koo jokk si moom sa waxu loolu nekk fa teg seeti keneen du la lor boo fa jëlewul loraa nga yow doo fa jële leneen kon loolu lu am solo la bu baax a baax nan si bàyyi xel ndax parce que ëllëg kenn ku nekk sa bàmmeel ngay tëdd sa kenn ku nekk la la fay fekk sa jëf moo la fay fekk ak nit ki lu mu foor foor si yow bàyyi du la fa fekk ya yaay du la fa fekk sa jëf rek moo fay ànd ak yow bu la taxañee ba teg la si ko su bàmmeel doom yeeg alal jeeg soxna yépp mën na ñëw témoin la ak xarit yi waaye booy dugg jëf rek ay ànd ak yow si biir bàmmeel bi ñépp danay retourné euh, si àddina nañ bàyyi xel si loolu bàyyi xel si nag bëccëgu weeru koor mi ngi ñëw fanweeri fan la wala juróom ñaar fukk ak juróom-ñeent ñun ñaan yàlla keroog dimanche si ngoon bu fekkee ne dañu mooy séntu bu njëkk yàlla yàlla dëppale xol yi dëppale gis-gis yépp ñu man ko gis bët teg ko si bët ba ñun bu ñu xëyee altini warandoo muy nekk lu gën si ñun si xeetu Muhammad yàlla na ko yàlla defal di lay wax dégg ak topp yàlla na ko yàlla def si ñun lu si jub ñu jàpp ni si ndimbala suñu borom subhanahu wa taala waaye lu si dëng ñu jàppale suñu làmmiñ wa ma salik alallah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu